gis nga ni mu mel. Mhm. bu ma ko dugaloon ci salle entraîné ko correctement au bout de trois semaines ngeen utali ko combat te gis nga ni xolam bi toll. donc la force de travail dañ koy liggéey. d' accord. ça me rappelle suma maître judo à l'époque Midori Shiba me disait euh, tout est dans la tête. d' accord. et il suffit simplement de travailler pour que les muscles viennent. Mm -hmm. donc. Euh, c'est dans la tête. Euh, combat combat c'est beneen jàngat. d'accord. mais malheureusement fii au Sénégal euh, dans les salles de sport pour ñoom bu ñu fay dem di entraîner wala bu ñu fay bosee dañ ko pour passer na na fa toog comme ça ñu mën a féex quoi mën a liggéey. Hmm. sport. Hmm. surtout encore la ma wax mooy ku ko ci bugg a def. Mhm. consacré temps bu bu doy pour jàng arts martiaux. ñu mu nekk nii buñ ci defee quinze ans d' apprentissage. Mhm. ci arts yi seen carrière làmb jeex. bu fekkoon ne day suma xalaat. Mhm. am na lu ñu mën a jàpp yemoon ci làmb ji di ma gën. toog fii buñ naan kañ la koor bi ñibbisi. Mhm. c'est grave. jàng des techniques de coup de poing. voilà jàng des techniques de coup de parce que ci la bokk. Mhm. boo seetloo combat bi lu ko ñu law kick mooy le coup de pied bas bi mu def au niveau du tibia ça a déséquilibré bombardier. pour ñi nga xam ne bii ñu ngi seetaan làmb ñu ngi fàttaliku combat bombardier ak Tapha Tine. Mhm. gaañ na ko gaañ bi metti booba d'accord. am na doole. mais doole rek du xeex. te la ne xeex la dañ lay jël Mariama ci cage dugal la ci. jàpp sa jàpp sa adversaire ñëpp génn ñu ñu ñu ñu kàdd naa euh, cage bi ak des fa. et il faut saluer le réflexe de l'arbitre parce que rapidement. Oui. il a il a il a réagi. il a réagi rapidement daal di arrêté combat bi. effectivement yëkkati boppam daal di au médecin yi. <laughs> heureusement. mais su xawoon am tuuti retard lu ko baax bu ko arbitre bi arrêté wul kenn amul droit arrêté ko. Mhm. bu fa jëlaatoon ñaari coups wala ñetti coups lan mooy arrivé. Mariama les les combattants de MMA là lu ma lay wax fii tey c'est des tueurs. d'accord. c'est des tueurs lii mooy seen métier boobu xam na ay yu nekk ci net bi faut voir le gars là à mhm. d'accord li ñu def c'est fou te amul beneen métier bu dul dem xeexi dem fa dem entraînement nelaw am docteur yu ko suivre mu am alimentation boo xam ne bi alimentation adéquate mhm. boo xam ne bi en tant que compétiteur loolu lay def mhm. bu fekkee ne tey fi mu nekk nga war a dem bëri bëre amul benn critère pour nekk mbër. Mhm. amal doole dañu ko dañ daw ci booru géej gi dem bëri ji. Mhm. c'est tout c'est tout. boo mënee def ay dakaki dugub à gauche à droite c'est tant mieux. d'accord. mais boo seetloo combat bi ñi nga xam ne bii am nañu notion laa wax. Mhm. xam nga euh, Mariama bu li may wax nag ci internet lay wax dana ci am ñu réagir. dëgg la wax loo xam ne bi mais man li may wax ah, je le dis en âme conscience. oui. du du itam euh, bu ko glorifier mm-hmm. mais c'est parce que wax yàlla je le dis à qui veut l'entendre les arts martiaux chez moi. oui je sais ce que c'est. Mm-hmm. quand j'en parle je suis dans mon jardin. te quiconque boo xam ne bii. li déglu nga li may wax bu ko contredire parce que face à face qu'on discute et je suis sûr et certain que personne ne le fera